UCAB FM. li gën a ci yéen kay. Papa Saer Mbaye. bis simila. lu soxal list yi nga xam ne kon ëttu attekaay bu kaw bi dàq na ko daanaka yéen kaay yu bëri moom la ñu xëy dinu ko nettali ku ci ne ak li nga xam ne kon moo jëm ci wàllu ko taxawaay nga xam ne kon jot nañu ko ca nemme ko sunu naataangoo yi xëy di xamal ne ëttu attekaay bu kaw na li nga xam ne kon moom moo di recours yu coalition Yewwi Askan Bokk Yaakaar jot nañu ko faa yóbbu kenn ku ci ne di clamé sa sunu naataangoo yi xëy di xamal ne conseil constitutionnel kay taxawaay bi nga xam ne kon moom la ci taxaw mooy gën a dëggal rek dogal bi nga xam ne kon ministère de l'intérieur jot nañu ko caa jël yéene bi xëy di xam ne Eh, jamono ji nag lu jëm ci wàll woole tax na nag eh, kenn ku ci nekk sa taxawaay ndax ñii di coalition Yewwi Askan Wi eh, bokk na ca la nga xam kon gàntal nañ leen ko mooy rek lu jëm ci wàll ko seen liste proportionnelle ba ñii di titulaire yi lañu ne duñu bokk ci wàllu ko jongante ba yéeni kaay bi xëy di xamal ne bu dee waa Benno Bokk Yaakaar naka beneen wàll ga doon suppléant yo moom la ñu gàntal ne ñoom duñ ca mën a bokk yéeni kaay bi xëy di xamal ne luñ ci mën di nemmeeku ñàkk bokk ko liste yi nga xam ne kon moo jëm ci wàllu ko jogante yi doon waa coalition Yewwi Askan Wi Ousmane Sonko ak ñamu àndal yéen kaay bi moo xëy tënku ko ne ñoom génn nañ leen ci forme Sud Quotidien moo xëy diñu ko xamal yéen bi xëy di xamal nag ne fi mu toll nii bu fekkente ni si daanaka rek mën nañoo wax ne li nga xam ne kon moom moo di waa ba yéen kaay bi ba tey di xafaatli ne fanweer ak benn fan ci weeru sulet 2022 lañ fas yéene wàllu ko jongante yi xam ñu ko cee amal loole nag yéenikaay bi xëy di xamal ne daanaka mbetteel dëggantaan la Ousmane Sonko ñoo ma àndal bokk na ci Khalifa Sall ñoom mu am ci lu jëm ci wàllu ko liste bi seen list proportionnelle bi nga xam ne kon titulaire ba dañu ko caa génne yéenikaay bi xëy di xamal rek ne loole ab jafe dëggantaan lan ci joota nemmeeku Walfadjri quotidien xëy di xamal rek ne luñ ci mën di nemmeeku loole moom day jàll wala mu rajax lu bëri coalition bi nga xam ne kon moo nekk ci kujje politique gi moom mi nga xam ne kon daanaka buñ koy fàttaliku ci dogoon tey locales yi doon nañu ko amal lu ëpp rek ci lii di gox goxaan yi moom moo ci tegoon loxo yéenekaay bi xëy di xamal rek ne listam bi nga xam ne kon ko koy jiite doon Ousmane Sonko euh, na nañu ko yéenekaay bi xëy di xamal ne nag lu ñu ci mën ne nemmeeku ñoom nag mbir mi nee nañ duñu ko banoona lépp da a jaar ci yoon danañ ca dem ba jeex tàkk ngir ñu jox leen li nga xam ne kon moo di seen àqal seen yelef yéenekaay bi xëy di xamal ne combat politique dëggantaan moom lañ ci jotoon nemmeeku nag loole mooy li nga xam ne kon mooy tax ñu jot seen àqal seen yelef yéenekaay bi di surtout quotidien moo xëy di ñu ko wax ak Walfadjri lii di ba tey sunu naataangoo yi xëy di xamal ne ginnaaw liste titulaire bi nga xam ne kon moom bëgg nañu koo xañ mu bokk ci wàllu ko jongante yi nga xam ne kon moom la ñu waajal ci député yi bi moo xëy di xamal ne yeewu askan wi moom nag fi mu toll nii la xewoon weeru mars moom la bëgg a tollantuwaat l'observateur yéenekaay xëy di xamal ne luñ ci mën di nemmeeku mu doon mbir moo xam ne kon mu yéeme moo xam ne kon gis ko ci taarix jafe na lool yéenekaay bi xëy di xamal ne ci taarixu politique bu réewum Sénégal loole nag rawatina ci wàllu ay jongante kon moom la gis Thiès nee na lii moom guuleet mu teg ci bët ndax gàntal gi nga xam ne kon bëgg na koo gàntal liste bi nga xam ne kon moom moo di liste bi nga xam ne kon moom moo di titulaire yi nekk ci proportionnel bi yéenekaay bi xëy di xamale conseil constitutionnel kay li mu def lu jara xoolaan la dëggal gi nga xam ne kon dëggal na ko waa direction générale des élections yéenekaay bi xëy di xamal ne loolee nga xam ne kon moom nañ jël du gisuñu ci leen loo xam ne kon taatakaay bi sukkandiku na ko ci wàllu ko wote yi ni muy doxee ci biir réewum Sénégal ba tey critique yéenekaay ma nga ca lu jëm ci wàll wàllug li nga xam ne kon moom di mbii coog mbaaloo gu métti gi nga xam ne kon dox na ci diggante kilifay nguur gi ak ñii di ku jegi yéen kaay bi xëy di xamal ne jamono ji ñu ngi waajal lu jëm ci wàllu ko jogante li toxo coow la moom bëri na ca lool da bokk doo bokk kii laay génne kii laay dugal yéen bi xëy di xamal ne conseil constitutionnel moom ci gis-gisu ko ñenn ci askan wi yéen kaay boo xëy di xam ne ne lii mu jëfe kay loolee mën naa dugal réew mi ci ab musiba mbaa bakkumba yéen kaay bi xëy di xamal ne luñ ci mën di nemmee ko fi mu toll fiti ñu ci bëri bari toogatul ndax xupp gi nga xam ne kon ñii di ku jàpp léegi ñu ngi koy xuppan danañ wàcc ci mbedd moo xam ñoo am ndigal waaw wala déet ci marche bu fas ne nu ko ca amal niki nag ci àllarba ji yéenekaay di a ba tey ma ne ñoom nag jamono ji li nga xam kon bëgg nañ ko ci àllarba ji mooy benn ndaje mu mag ndaje mu mag a mag moo xam kon moo xam kii di préfet jox leen ndigal waaw wala déet nee loolu kippe ko danañ def seen doxum ñaxtu na nga xam ne kon noonu la ko bëggee yewi askan wi yéenekaay bi xëy di xamal ne fi mu doxum ñaxtu moom la ñuy waajal bu mag a mag boo xam ne kon àllarba ji ëllëg lañu ko fas yéene amal ngir rek lu jëm ci wàll ko seen liste bi ñu mën leen koo delluwaat yéenekaay bi xëy di ne luñ ci mën de première classe maanaam rob ci yu njëkk yi boobee kon def maanaam génne leen si wàllu ko jogante te nag bawul ci kenn ku dul ñii di waa direction générale des ba tey lu jëm ci wàllu ko ay danger fitna yoo xam ne ko ñu ngi koy tiit ci jogante yi l'info yéenekaay moo xëy di ca artu solo yéen kaay moom naka la ko ñor bokk na ci li nga xam ne kon moom moo jëm ci wàllu ko aj gi nga xam kon doon nañ ko amal ca mu doon péri yéen pèlerinage bu marche bi nga xam kon amal nañu ko ca su yi nekk ci le soleil di xam le ne luñ ci mën di ne ko lañ fa waxtaane bëri mooy fitna yi lu jëm ci wàllu ko ger gi ak wax naka sudul noonu ak leneen loo xam ne kon jot na ko woon nemme ko ci ay yanteef yéen kaay bi xëy di xam le ba tey archevêque bu Ndakaaru Benjamin Ndiaye yéen biir ay kàddoom yëkkati na ci ay kàddu rek di sàkku ci Benno ak Rewmi lu jëm ci wàllu dëkkandoo gu rafet goo xam ne kon mu ngi ko cay sàkku wàllu kaaraange gi démocratie bu jaar yoon yéen kaay ba tey xëy nag dañu nettali kàddu yi nga xam ne kon fesal na ko ci cérémonie officielle bu li nga xam ne kon moom moo di doxu papa ngir boo doon noonu koo caamal ba tey yéen kaay bi dinu xamal nag ne jamono ji li jar a bàyyi xel dëggantaan mooy taxawaayu que ñii di kujak politique yi ba tey sunu nattaangoo yi di Dakaractu point com ñoo xëy di xam le ne Khalifa Sall ak ñamu àndal waaye askan ñoom nag nee nañ jekk nañ ngir ci àllarba ji yéenekaay bi xëy di fësal nataal bu doonoon ko ci amal ab jonal taskatu ci talaatay tey yi ne ci mën di la ñu fas yéene taxaw ngir li nga xam ko mooy seen taxawaay dëggal seen moo jëm ci ji nga xam ne kon nee nañu ñi nekk ci nguur gi ñoo leen tey woota nag nga xam kon moom lañ bëgg gàntal duñu ko nangu tey bi di igfm point sn moom itam ma nga ca di ku jëg politique yi xëy nañ tey doon amal doon janoo ak taskatu xibaar yi eMedia point sn moom ma ngay fësal kàddu yi ñi nga xam ko ñoo nekk ci ku jégoogu ba tey di xam le ne bu ñu sukkandikoo ci Ousmane juróom ñaar ñi nga xam ne ñoo nekk ci taatakaay bu kaw bi yokk ca njiitu réew mi yéen kaay bi xëy di xam le ne Ousmane Sonko nee euh, juróom-ñetti nit dong ñoo leen tekk jafe-jafe yi nga xam ko ñoo ci ñuy dund te nag loole duñu ko baax yéenekaay bi xëy di fësal taxawaay bi nga xam ne kon bëgg na na ko caa taxaw ba tey euh, sunu naataango yi di nekk ci igfm point sn ña nga ca ki nga xam ne kon moom moo di waaye askan wi di xam la rek ne commissaire benn commissaire de police moom moom rek moo leen joxe ay fichier audio ak vidéo lépp di jëm rek ci wàllu ko taxawaay bi nga xam ne kon moom lañ leen euh, bëgg a lu jëm ci wàllu ko jongante yi yéenekaay bi xëy di xam la ne loolee coow la moom nar na caa bëri lool mbokk yi yéenekaay dig di jëlëk incha li gën a fës ci yéen kay. Papa Saer Mbaye.